internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot su nekk ay xibaar yu wér ci réew mi ak bitim réew. Seneinfo. internet yi bàyyi xel Seneinfo ak Seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal xibaar réew mi. xalif bu communauté chérifien bu nekk fële ca Casamance di Cheikh Khatab Shamsidine Aydara moo génn àdduna démb ci àjjuma ji foofu ci këram ca Daaru Xayri ci Ziguinchor euh, gannaaw bi mu amee quatre-vingt-seize ans moom boobu nag euh, jébal nañ ko boromam kon euh, démb ci ngoon moom nag mooy kon xalif famille Cheikh Mahfouz Aydara mi nga xam ne mi ngi nekk ci dëkk yi di Daaru Salaam Chérif ak. daaru xayri ci commune bu Kalaba moom nag nee nañ ko amoon taxawaay bu am solo la eh, ci lislaam tey te ku doon dox la ngir jàmm amoo foofu la ca Casamance. gannaaw bi nga xamee ne nag eh, nguur gi eh, daje nañ ngir waxtaan ngir indi ay saafara ci li xam ne moom mooy dundu bu cher bi bi réew Macky Sall nag waxoon na ne jël nañ quinze mesures yoo xam ne kon ngir xeex daal. li di dund seen ci kaw loolu nag taxawal nañ ñu toll ci huit commission ngir xool daal nan la ñuy waxtaanee kon ba euh, isi pexe démb nag euh, gannaaw bi nga xam ne kon ay réunion sectorielle euh, amal nañ ko te ko jiite di premier ministre Amadou Ba ñu ne nag ñu ngi xaar daal résultat yooyu la ndaje fii ak ñetti ay bés. gannaaw jéey ji nga xam ne am na fële ca Kaolack ca quartier Ndoro nga xam ne nag euh, am bâtiment moo fa daanu ba sax ñeenti nit ñàkk ca seen bakkan procureur bu Kaolack nag dafa ubbi woon ab lanket euh, ngir xool daal euh, lan moo waral mbir mbir mel ñu nekk ci lanket boobu am na koo xam ne teg nañ ko loxo ngir daal kon ay laaj yu ñu war ñu a si moom kooku nag ñu ne moom ab. propriétaire la maanaam moom moom boulangerie bi nga xam ne moom moo nekkoon euh, ci suuf mooy ci kër googu nga xam ne kon fa la jiyee ci amee ñu ne nag euh, dañ koo daal euh, kon teg loxo ngir nag amal ab lanquête ngir xool ba xam ndax tàngoor boobu nga xam ne kon dinañ génnee ci boulangerie ba bokkul ci li tax kon ba bâtiment ba daanu. xibaaru Afrique dañ koy tàmbalee que Burkina Faso foofu nag xam ngeen ni démb dafa amoon ab coup d'état nga xam ne eh, moo fa nekk eh, di te sax muy am soldat ay moromu soldat kon ñoom ñoo ko jëlee eh, réew ma bésu tey bii nag ñu ne daal ak tekkaaral dellu si waat na fa gannaaw xam ne nag comme ni ma leen ko waxee lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. jëlee nañ ci boppu réew ma nga xam ne sax moom janvier bi weesu rek la fa yéegoon gannaaw moom ci boppam ne daf ab euh, capitaine la euh, bu am 34 ans di wuyoo turu Ibrahima Traoré. waa CEDEAO nag démb amal nañ ab euh, communiqué di ñaawlu mbir moom nga xam ne kon xew na ca Burkina Faso muy coup d'état boobu ñu ne loolu sax dafa nekkoon loo xam ne. jaruloon sax muy am gannaaw bi nga xamee ne euh, ñoom sax tàmbali woon nañ ay waxtaan ngir daal euh, li nga xam ne moom mooy ordre constitutionnel euh, delluwaat foofule ci Burkina Faso ci 14 juillet 2024 bi ñu dégmal Union africaine itam ñaaw leen bi la mbir ki nga xam ne moom mooy président bu commission ba di Moussa Faki Mahamat moom it amal ab déclaration mais daal. mbir moomu ñu koy euh, ñaawlu bu te sax mu ngay woo ñi xam ne ñoom ñooy sol daal ya euh, ngir daal euh, ñu bañ xam ne day faagaagal li ngi population ya wala liberté publique ya wala nga xam ne moom mooy droit humain foofu la ca Burkina ñoo fa ñàkk seen bakkan ci ay xeexoo yoo xam ne ay nit ñoo doon wéccante ay sox. dafa ñuy wax province bu Sistan wala Sistan ñu ne nag euh, xam ngi nag euh, lan moo waral yooyu la xeexoo nga xam ne sax ñaari colonel yu gardien de la révolution ñàkk nañ ca seen bakkan nag mu ngi am ci jamono yoo xam ne Iran manifestation moom moo ko lëb gannaaw bi nga xamee ne nag le 16 septembre bii ñu génn dafa amoon euh, as ndaw su ko police de mars jàppoon ku tudd Massa Amini te ci mujjantal ga mu ñàkk ba kanam lii la ñu doon day ci ay xibaar di seen teewlu di leen jox